Thank <laughs> you. Toujours dans votre actif du jour de ce jeudi 22 février 2024 sur VIP People TV la chaîne des grands événements qui n'a li nga xamante ni mooy le greffier Ngagne Demba Touré coordination jeune parti boobu ñu disout muy Pastef ginnaaw bi nga xamante ni lig daf ko convoqué le 8 août bi, passé mon acte saint Manga ginnaaw loolu nag si la daw génn dëkk bi jaar euh, ci suuf si ba dugg Mali dans di fay def lu toll ci juróom-ñetti weer muy Ngagne Demba après loolu daal la exilé wu faut-il Mali fugitif boobu nag bi mu dellu see fii ci Ndakaaru ñoom dañu dem arrêté ko fofu ci kërëm Grand Yoff ginnaw bi nga xamanteni justice dafa lancé won ben mandat d'arrêt international contre mom dembu mu ngi fanaan fofu ci rëbës say lay jakarlo ñi nga xamante ni doyen des juges pour mu déglu ko mais gis nañu ñi nga xamanteni mom la bokal corps de métier indi nañu ben solidarité jaarle ko ci mom ku nekk nak xam na ni Ngagne Demba Touré parti Pastef la bokkoon hormis li nga xamanteni manam moy métier bi nga xamanteni en tant que greffier nek fofu ci tribunal de Dakar mais da doon yëkëti ay cadre yo xamanteni da doon woote appel à l'insurrection da doon saga di offensé ki nga xamanteni moy le chef de l'État ginnaw bi nga xamante ni dafa sukkandikoon ci leader bi nga xamanteni moy Ousmane Sonko yoroon parti bi ñu dissoudre muy Pastef kii di dem ba Touré gis nañu ay déclaration yu mu doon def ci réseaux sociaux yi doon insister képp koo xamanteni jeune nga pour que ñu taal dëkk bi baare lépp ñoom ñëpp tegoon nañ seen mais tey lañ ko war a déglu mais dañuy gis nag benn vague de soutien boo les ñu ngi koy indil li am solo ba am solo sénégalais yi foog ñu dellu soit seen xel les ba Touré agir agirul woon en tant que greffier su doon dafa agir en tant que greffier tey ay collègues am mënoon nañ taxaw défendre ko mais doon agir en tant qu'un politicien et un politicien ne gère que ses euh, intérêts personnels Ngagne Demba Touré da doon woote liy taal Sénégal Ngagne Demba Touré da doon manquer de respect qu'il kuy dire, qu'est-ce kuy institution fiche ci Sénégal kon je crois que bi muy def loolu ay comme greffier ñoom seen bopp sañuñu ko woon def kon donc mënoon nañ ko woo alerté combat, mbaa def communiquer, ñaawlu li mu doon def mais tey su dee nit day def lu ko neex ci wàllu politique ëllëg ci biir yoon su ko bëggee soxla ko ñu saxaw ñun dañ koy soutenir donc sénégalais yi ñoo war a posé wu ban Sénégal la ñu nekk Ngagne Demba Touré bu muy ñëwaat Sénégal da doon wane ni que moom mën nañ ko défier li nga xamante ne la justice en tant que un greffier je crois que justice su ko convoqué moom dafa war a wuyu ji tey man Tange Tandian suñ ma convoqué woon wuyu jiw greffier yu koy défendre ban position la ñuy am dañuy jàpp ni que kii daf ma pour wala daf ma manqué de respect moo tax ma souvent parfois gars yi dañuy def ay acte yoo xamante ne du population yi ñoom ils croient que ils sont au-dessus du Sénégal ils sont au-dessus de la loi alors que si nul n'est au-dessus de la loi il faut qu'on respecte nos institutions ku nekk ne Touré bu muy agir da agir en tant que politicien donc politicien agir da quoi que agir avec responsabilité agir avec maturité Sénégal nous ñuy wax ñun ko mais vidéo depuis mu en tant qu'un fugitif te lan la laa ko jàppe nit ku baadoola la nit ku sàppet la jamono ju muy woo jeunes yi nañu génn ñu xeex ay moromam ñoo génn xeex ñu jàppaleen ci kaso bi moom dañ ko woo ragal kaso moo tax mu daw dem yoonam donc on peut jàpp ni que Ngagne Demba Touré c'est un traître qui a trahi ñëpp koo xamante ni àndoon nañu ak moom nit nag su dee gor nga ngay woote benn affaire yow yaa war a jiitu ci xeex boobu mais munoo woo ay doomu jaamur ñuy xeex di taal suba ngoon guddeeg bëccëg yow ñu convoqué la nga daw génn réew mi ñoom ñu tëdd ci kaso bi juróom-ñetti weer ñii tëdd fa at te yaakaar naa ni moom mii gënul nit dof gënul lii nga xamante mooy ay détenus yoo xamante ni jàppoon nañ ci kaso bi gënul tous ces manga bi nga xamante ni ko donc je crois que mooy indi benn acte boo xamante ni acte de lâcheté acte bo xamanteni xamante ne acte bu acte stress la ndax ndaxte stress kessa moy jaas comme ni nga xamanteni mom la Ngagne Demba Touré def mais tey dañu bëgg jël politique war ko saccager suñu rew et sénégalais ñoo wara jël sen matuwaay jël sen responsabilité xam politique mënuñ jël otage ñii nga xamanteni moy population Sénégal ndax ndaxte population Sénégal ñoo leen ëpp fii képp ku fi nek da ngay tënku ci loi tënku ci charte tënku ci ay responsabilité parce que ñun bëss bu ñu yoon wowe dañuy wuy Ngagne Demba Touré ñu lay gënuñu bàyyi ëpp ñu responsabilité ci Sénégal bañu koy woo du wuy kon suñ ko lancé mandat d'arrêt international ñu ñëw jàpp ko tey ay magistrat ay juge taxaw ay greffier ay avocat dem défendre ko parce que waruñu ko jàpp bi wax politique la ça ne veut pas dire que dans notre conscience, politique képp ko ci nek waxal lu la neex yon su la woowee bul dem wala bul wuyu wala suñ la woowee ñu défendre la ñu bàyyi la ci bit dem ba Touré gënul ay moromam yu tëdd ci kasso bi te defuñu ñaari salam salaamaaleykum donc su ngeen di défendre ben affaire da ngeen di défendre la vérité mais là vous ne défendez pas la vérité vous défendez que votre intérêt sen intérêt yooyu ngeen défendre nak tay population bi nga xamante ne dem ba Touré mi ngi leen doon génnee à travers seen live ba mu nekkee Sénégal ba mu nekkee Maroc ba mu nekkee Mali je crois que di leen wo nañu taal Sénégal brutalisé ko ñoo ñu jàppaleen mom ñu wo ko mu daal di daw da waroon ñew bokk ak yéen combat état bi jiite suñu leen jàppee ñu jàpp ko ñu xam ne que kii askanam lay xeexal mais on voit que Ngagne Demba Touré ne se bat que uniquement pour ses intérêts personnels mais il se bat pas pour le peuple sénégalais li am solo ba am solo arrêté nañ ko lémbu ci lig fanaan na foofu ci rëbës say dinañ ko déglu foofu déranger les juges dina ko déglu mais nak dina am soutien bu bëri ndax ay collègues am ne dañ koy soutenir pourquoi ñukoy soutenir soutenir niiruñu ko nak parce que dafa def dañ ko japp ci walu liggéeyam dafa wacc walu liggéeyam tànn benen yoon muy la politique donc je crois que il faut que ñu respecte les sénégalais parce que li ma commencé gis Sénégal sous les ni la nar a continuer anarchie totale la nar a indi Sénégal li am solo ba am solo moy ngañ dem ba Touré après li nga xamanteni moy exilam en tant que fugitif fugitif la communauté à ça pète ko mën a jàppee ndaxte dañ ko convoqué mu daw libéré yenn prisonniers Tout ça Manga bi ko jàppaale ñu libéré ko mu fogg ni mom su ñëwee l'olom alors que greffier la waron na un mandat d'arrêt international ça s'exécute à tout moment par ñi nga moy juge d'instruction <laughs>